mbokk yi jërë ngeen jëf rafetlu seen ànd ak rajo Futur Media benn waxtu jot nañu jukkil leen xibaar yi li ci gën a fas xibaar la bu nu nangoo ci météo ngelaw gu am doole diggante Saint-Louis Dakar ak ci Petite euh, Côte bi maanaam Mbour ak fa dend ak moom météo ne na ci jëpp bàyyi xel rawatina nag nappkat yi ndax ay accident mën nañ ci euh, tukkee ku febar ñu yobul hôpital deful ndànk Mine, la faj ndax jël mi dafay fay Nena, na ku euh, ci urgence Dal, dañu la en charge par force joxna ministre gi ñu Padmi paj mi ay instruction Sénégal zéro déchet Madame Tagale, Sénégal ak mbalit mi clean day bi ëllëg la samedi Euh, ñëpp a ngi koy waajal euh, ñiy tonni mbalit mi ne duñ ci des gannaaw ca Kaolack euh, gornoor ba sàkku ci askan wa ñëpp ngir ñu génn seetal Kaolack su ko defee Kaolack daal mën a tàggoog salte bi ca Fatick askan wa ne noppi nañu ñoom ñëpp ay bokk ci mbir mi ku ampel peel râteau fourchette ba ci brouette na nga ko andi. géejawaay ñoo lank ñoo bañ ma nga woon ca mbedd ya dafay caravane ñaax askan wi ci seen xeex ngir ñu jëlee fi yokkute courant bi ba noppi it bàyyi gi Marius Sagna ak ay ñoñam xibaar yi biti réew binte Diallo nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Barthélemy. acca looy tàmbali. muy général iranien bu ñuy wax euh, Soleimani la américain yi boom ca Irak loolu yëngal tey jii àdduna bi Liban Irak Iran nee nañu dinañ fayu premier ministre bu Israël daal dinay dakkal euh, euh, tukkeem bi mu doon amal ca Grèce ñibbiwaat Israël Paris ak Berlin di wote jàmm. Charles Blé Goudé yëkkati kàddu gannaaw bi ñu ko condamné ñaar fukki atu kaso ca Côte d'Ivoire nee na lii du dara nag lu dul ay sanctions politiques que jiite woon les jeunes patriotes di ñaan président Ouattara mu bañ a yee fitna te ubbi waxtaan yu yaatu ak ñëpp ca Côte d'Ivoire. yaatal gi ci kanam euh, soxna Binta Diallo Cheikh Tidiane jañ ñu ngi laa nuyu. maa ngi laa fay Barthélemy. ca li gën a fës ñeel tàggat yaram. ñàkkum jumtukaay ngir mën a amal sport ci anam yi nga xam ne moom lañu ko daal di bëgg li nga xam te ne moom la jural Sénégal nag bëri na ba tax na fi mu toll nii euh, dafa jot ñu daal di kon bokk am jumtukaay yu ni mel ngir mën a permettre kon bokk sport bi gën a mën a jëm euh, ci kanam leneen li nga xamante ni fas nañ ko waxtaane ci xibaaru tàggat yaram bi moo di ëllëg di bi li nga xam te daal moo du am la ñuy daal di amal danañ daal si li nga xam te moo di programme bi laata nag ñu wëtale Espagne wax itam seen programme si seen championnat bi seen yaatal gi ci kanam yéeni kaay daan ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye gis-gis ak RFM tey ñuy waxtaanee dogal gi ministère de la santé jël ñeel urgence yi ci hôpitaux yi Aliou Ba moo fare ci machine yi ñu tàmbale ko xibaar gi ñu nangoo ci météo nee na ngelaw lu am doole diggante Saint-Louis dakaar ba ci Petite Côte gi maanaam fa Mbour ak fa dend ak moom ba tax muy sàkku ci askan wi ñoom waa météo ngir ñu bàyyi ci xel bu baax a baax Dakar loolee nag liko dalé dimanche jàpp mardi bu 6 h du matin la ngel lolou di doon ñu ne nag na ci nap kat yi gëna baye xel ñom ñi nga xamanteni ñom ñoy dem géej ndax ay accident mën nañ ci tukkee Assane Dem bu météo national ñu tewlu ko ci ak Georges Déthié Diop. defar nañu bulletin tay bulletin bi wax ci ab ngelaw bu am doole ngelaw bi nga xamante ne dina. amandi ci sa ci dibéer ba dimanche lu ko dalé 11h ci goudi jëm ba talaata euh, six heures ci fajar waaw ngelaw bu am doole la bu nga xamante ne ñu ngi koy xaarandi ci diggante ndar ndakaawu dem ba euh, sa mbuur sa Petite Côte ba waaw lu ñu ciy gis daal mais ngelaw boobu dina am doole te loolu mun a euh, indi gàllankoor ci wàllum napp ji ci nappkat yi ndax mun na daaneel gaal gi wala mu en tout cas créer ay accident ci biir géej gi danger bu réel la donc ñu ngi wax sunu mbokku nappkat yi ak ñëpp ñi nga xamante ne nii dinañ dem géej que ñu bàyyi xel ci ngelaw bu takk boobu ndax mun na indi gàllankoor bu baax a baax ci seen jumtuwaay ak ci seen euh, ci ci ñoom seen bopp ci seen kaaraange daal. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. ku feebar ñu yóbbu la hôpital boo deful ndank duñ la faj ndax kenn du la jël en charge loolu nag di lu métti euh, ministère gi ngank wàllum euh, paj mi am na ay matuwaay yum ci jël euh, def ay disposition yoot ko ñi nga xamante ni ñoo jiite hôpitaux yi fi nekk fii ci Sénégal nee na leen képp ku feebarati ñëw nekk ci situation d'urgence nañu def seen kéem kattan ba jël ko en charge Ana Rocha yër na note bi ci bataaxal bi nga xamante ne moom la ñu janvier ministère de la santé mu ngi sàkku ci bërëbu fajukaay yi public bi ñu fexe daal en charge bépp patient boudé place wala boudé condition yu ñu matul ngir ñu directeur hôpital bobule moom moo war a patient bi ci beneen bërëb wala mu def SAMU ñetteeli dogal bi nga xamante ne tukkee na ci ministère de la santé moo di saa yu ñu yebalati ab patient ci beneen bërëb bu fajukaay médecin bi nga xamante ne moom la ñuy dénk gàdd bi ci bis boobu moom moo ko war a valider mu yokk si ne patient bi amatul dara ci li muy lijjanti fan lay dem ndax foofu am place ak kan moo ko dalal loolee yep médecin responsable de garde bi moko ko war a lijjanti bu ko defee patient bi day dem rek ñu jël ko en charge ci boobulee bërëb ministère de la santé di Saku itam ci directeur hôpitaux yi ne saa ñu transféré malade buñ ko def ci n'importe quel oto

ci ab bataaxal bu ministre de la santé euh, fësal jëmale ko ci l'hôpital yi ak ña koy jiite lépp rek ngir urgence yi ñu toppatoo leen bu baax kon bu ñu ko seetloo li ñu dëxëñ euh, ci boobee document amul dara lu ci bees ndax hôpital bu nekk nii la war a doxee waaye jafe-jafe bi rëy mel ni guy gàll yoon wi mooy ci biir bërëbu fajukaay yi seeni service urgence ñoo gën a feebar li ko waral dañoo manqué jumtuwaay yu doy fajkat yu doy ba noppi fa ñuy dalal nit ñi matul bu nekkee nag jafe-jafe yooyu yëpp ñu tudd nguur gi indi na ci ay saafara service d'urgence yi dinañ mën a jël seeni malaat faj leen wala sax ñu yabal leen ci beneen bërëbu fajukaay ak ay conditions yu gën ndakaaru booy méngale hôpital principal képp moo fi tane ci service d'urgence ndax li mu mën a jël sax mat na téeméeri nit bu ko weesoo beneen boo dam dañuy taqale ndax seeni moyen yi ñuy liggéeyee matul boo rombee ndakaaru dam ca la des ci Sénégal nag la mbir ma gën a mittee ndax ñëy liggéey ci wàllum urgence daanaka amuñu dara ci seeni yoxo te mbirum urgence si boppam doon na loo xamante ne lu yaatu la façon yi bari te bu nekk ak pajam te loolu loxoy neen mënu koo faj Awa Mbaye euh, jërëjëf euh, jafe-jafe yooyu nga sulli euh, ki nga xamante ni moo di directrice gi ñu denk établissement public yi yëngu ci wàllum paj ne xam nañu ko ba tax na jël na dogal ne ñu gunge structure sanitaire yi ci wàllu woowu le ñu teewlu ci docteur Fatou Mbaye Sylla ci jokko beeg Georges Déthié Diop. dëgg la nag doxalin bi dafa am ay moyens yu mu laaj. parce que bi ñu defee waxtaan bu yaatu bobu lol bobu ñu bari wax nañ ne ci urgence yi xam nga dafa dalé ba ci kër yi surtout bi ci biir hôpital bi en terme de infrastructure manam bâtiment bi en terme de équipement yi médecin yi dafa war a doy infirmier dañoo war a doy dañoo war am ay médicaments loolu yëpp dafa bokk fi jël en charge manam taxaw ku nekk en situation d'urgence donc nodd moom liñ ci bëgg mooy médecin bu nekk directeur bu nekk taxaw taxawaay bi nga war a taxaw ci jël en charge urgence maintenant su demee ba am lu manqué am na loo xam ne hôpital moo ko war a jël en charge boo dee jënd garab ak leneen ak leneen fekkee dem nga nag bu bëgg ko taxawal te am ci ay tolof tolof am ay ma waaw ñun war nañ ci war nañ ci aussi jàppale leen parce que loolu mooy lu normal parce que liggéey aussi da nga def sa liggéey ci normal dëj nekkuñ ci foofu nii lañ ko war a defee naam xamoon nañ ko mais dañ koy fàtt fàttali léegi nag ñëpp dañ ci war a taxaw xar seen tànk tubay taxaw ci bu ñëwee ba ci digg ma nag ñun ñun dinañ duñ ko duñ def lettre circulaire bi rek bàyyi ko noonu dañ leen topp di leen superviser dañ ci hôpitaux yi dañ am suñu moyens yoo xam moom lañuy jëfandikoo pour mën a xayma liggéey bi ndax jaar yoon wala déet bu jaaree yoon xayri ñu félicité su jaaree yoon dañ toog xayma ak ñoom lan moo tax soit xaalis bee doyul wala bâtiment yi ñoo répondre aux normes wala ressources humaines ñoo doyul wala et cetera en tout cas mën am ay ay causes yu bari su boobaa nag ñu toog ak ñoom xool ku nekk lam ci ca war a def. docteur Fatou Mbaye Sylla mooy directrice des établissements publics de santé des ci wàllum paj ba léegi wàllum wér-gu-yaram wax ci mbirum anémie maanaam ñàkkum deret loolu nag euh, da di gàllankoor fële ci département bu euh, Salemata foofu consultation prénatale yi ñuy def yëpp dafa wone ne ci fukk ak juróomu soxna yi nga xamante ne dañu leen di consulter fukk ak ñaar yëpp dañoo anémie maanaam ñàkk deret waaye foofu li ci gën a doy waar moo di amul banque de sang ba tax na ñoom ñëpp ca Kédougou lañ leen di yóbbu ñu war a nag parcourir lu toll ci juróom-ñetti fukk ak juróomi kilomètre ak risque yi ci nekk yëpp Awa Gueye mooy sage-femme mu centre santé bu Salimata ay kàddoom ci micro Moussa Oumar Gueye. yàggul rek ci semaine bi am na benn femme boo xamante ni si benn ci poste district yi fa la jóge bi mu ñëwee 2 grammes 2 grammes tuuti na lool koo xamante ni suñ la nee 11 sax baaxul ci yaw waxuma laat nga am 2 te ko ni ko doo demee may ka deret danaan la aw ma deret day day bañ gis nañ fi koo xamante ne nii jabaram 4 grammes la am ñu mu yóbbu ko ñu ni ko kaay may ka mu ni moom amul deret bu mu maye waaw fii li ñu gën a sonal mooy anémie manque deret anémie moom sonal nañu lool par rapport ak yeneen pathologie moom anémie moo jël raw gàddu bi ko femme yi fii ñu te bu ñu ñëwee première déjà dañuy yéex a ñëw CPN malgré suñu acteur communautaires yi ñuy yi ñuy utiliser pour ñu dem sensibiliser du ñëpp ñooy ñëw teel a ñëw si CPN waaw mën naa ni fii bu ñu amoon par exemple vingt cinq consultations euh, douze yi yëpp ay cas anémie lañ. mu nekkoon Awa Guèye di sage femme fële ca centre de santé bu euh, salimata ci euh, ñàkkum deret googu nga xamante ni nemmeeku nañu ko ci sox soxna ya nekk ci département bu salimata Euh, wér gu yaram euh, balaay gën a mën a ñoŋ wàllum cet bokk ci maanaam daal set bokk na ci liy gën a ñoŋal wér yaramu doomu aadama yi loolaa tax euh, njiitu réew mi ne salte bi daal fii ci Sénégal nañu fexe tàggoog moom ci noonu la ñuy euh, lancé ni ki euh, ëllëg euh, bés bu njëkku clean day yi foofu nag ñi nga xamante ni ñoo di communes yeeg yooyu ñëpp la ñu Macky Sall woo ngir ñu dugal ci seen loxo waaye laata ëllëg am na ñoo xamante ni sax tàmbali nañu ko tey mu di taalibe Serigne Modou Karaay ñoom daanaka ña nga ca soobu nañu ci mbir mi yoon ya ca wakaam yëpp daal la ñu bëgg a set setal Sénégalais yi nga xamante ni ne nag daje nañoo ñoom foofule ca wakaam rafetlu nañ ko bu baax a baax waaye nee ñu daal li gën a set baax na Euh, yenu maana gën baax mu di ñu bañ a tilimal reportage xëy fesdel ci mbeddum Mermoz yore ay ratook baleeg yu ni mel lépp ngir defar foofu ba mu set ñooñee di ay taalibe Serigne Modou Kara ñu suba ni ko président de la république santaane ci dibéeri ku bale yi nga xamante ni nar naa tàmbale mu niiru mbooc kenn ci ñoom. suba dañ ci jàpp daanaka lii sëriñ bi def dafa doon lu symbolique. waaw ndax tey bu fekkente ne njiitul réew mi dafa wax ne moom suba lay tàmbalee programme boobu mu mel ni moom da ko ci jiitu loolu yaa nakaar jàngale la ak appel la wane ne moom loolu sawar na ci waaw mais incha allah suba ak Euh, euh, dem tàmbali nañ ko tey te damay ñaan sax ne est-ce que suba président bu ñëwee dina fekk dara waaw ah ndax ñun li ñu fas yéene def fi mu yaakaar naa buñ ci noppee gëm naa ne bu suba bu président bu génnee du fekkatee fenn fa mbali ca Medina nag moom Babacar rafet lu lu ni mel di ñaax sénégalais yëpp ñu génn ñoom ñëpp bokk ci set setal gi ñun ñoo ci mën a jàpp affaire bi du idée moom kenn rek mais il nit yi jàpp ci mhm. ñun ñoo ci mën a jàpp mooy ku nekk def sa si commencé ko sa kër daal après soo ko génn ci mbedd loolu moom idée bu baax la daal. ñoom ñu yow pare nga pour adhérer. si pourquoi pas. la bàyyeekoo moom nee na naam bale ba mu set baax na loolu wante bañ a tilimal itam kenn bañu ko. waaw idée bi adhéré naa ci bu baax. ñu bañ a tilimal. waaw parce que soo bëggee sa kër set rek. Euh, ni nga respecté sa gaale noonu nga war a respecté mbedd mi. maa ngi dëkk Parcelles Assainies unité 7. jox naa rendez-vous ñëpp parcelles yëpp ñu nettoyé ko incha ko set setal gi. ñu nar kaa tàmbali ëllëg loolee nag grand prix bu chef de l'État buy neexal quartier bu gën a set dinañ ko tegal ngir xool kan moo gën a ràññeeku ci cet googu ñu tàmbali. Salibata Aw ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy liggéey ci toll ni mbalit ñoom neñu xalaatu njiitu réew moomule duñ ca des gannaaw fas yéene nañu ko gunge lépp lu ci war daal daanu ko ci def ba ci suivi ba waaye ci seetlu gi moo di ñoom lu ci ëpp dañoo ñàkkuma jumtuwaay ba noppi. ñoom liggéeykat ya situation bi mu nekkee doyna war waar lool Doudou sar secrétaire général adjoint bu syndicat national bi ëmb kat yi tonni mbalit ñu teewlu ko ci. ñun ñoo ngi partager avis président de la république non seulement waaye tamit vision bi nga xam ne am na ko ci gestion des déchets wax dëgg yàlla incha allah ñun danañ ko ci jàppale ndaxte ñun jàppale ko jàppale suñu bopp la ndax secteur bi suñu secteur la ba tax na nag le le coordonnateur Ousmane Ndaw loolu la comprendre ba tax ba mu ñëwee ba léegi wax dëgg yàlla am na ay réformes majeures yoo xam ne moo ngi koy jéem a def ci structure bi tant sur le plan administratif technique mais également financière. waaw monsieur Sarr Nenga, nga xalaatu njiitu réew mi yéen koy rafetlu di ngeen ko it gunge mais cette lugi modi yen yéen katou nettoiement bi manam yi yëngatu ci walum balit, yéen amulen leen jumtuwaay yi war ba noppi kat yi euh, sen condition ñep xam nañu ko est-ce que dana yomb ci yen? waaw du du yomb ndax ndaxte wax deug Yalla képp ko xam am nga seetlu rek secteur du nettoiement moom ci ay jafé jafé ak ay tolof tolof le musso dundu. So xolé société yi fi jot jaar yëpp commencé côté régie municipal en 1976 Jaaré ci SIAP jaaré ci SOADIP ñaari ci Sénégal ka Dakar ba tey UCG ñëw xam nga ni tey benn flou institutionnel boo xam ne day indi éternel recommencement ci liggéeykat yi loolu moom moo indi wax dëgg yàlla liggéeykat yi toujours doon nekk ci précarité waaye moo tax structure bi nga xam ne tey daf fee nekk muy UCG dafa war a am beneen cadre institutionnel boo xam ne moo gën a dëgër c'est-à-dire créer benn agence boo xam ne wax dëgg yàlla dana am benn stabilité boo xam gestion des carrières liggéeykat yi condition optimale yi yooyu yëpp dana mën a mais dana mën a réunir. mu nekkoon Doudou Sarr di ki ñu toftal ci secrétaire général lu syndicat bi ëmb kat ñi yëngu ci wàllum tonni mbali tonni mbalit Sénégal zéro déchet euh, clean day bi ëllëg la ci samedi bi ma fàttali leen ko ca Kaolack góornoor ba sàkku cay euh, waa Kaolack yëpp ñu génn suba su ko defee ñu mën a taqale Kaolack ak euh, salte bi Alioune Badara Mbengue nee na Kaolack daal dañoo war a def dañoo war a jéem def seen kéem kattan ba ku tudda ci Kaolack rek ne doo mbalit eh, eh, du ko tuddati Kaolack eh, bañ a tudd salte gi ñu teewlu ko moom Alioune Badara Mbengue ci micro Ibrahima Diame. man daal dama bëgg Kaolack gi ñuy wax Kaolack salte Kaolack salte loolu dañ. loolu nag kenn mënu ko dindi lu mooy ñun ñun dañ ñoo ko mën dindi ay jinne wala ay malaaka du wàcc fii diñu diñu raxasal Kaolack diñu nettoyé Kaolack ñun ñoo ko war a nettoyé suñu bopp te ku ci bo boo ci dugalee sa loxo Kaolack dana set mais nag ñun ñëpp bu ñu fi toogee di xoolee rek naan Kaolack dafa salte Kaolack dafa salte suba ba ngoon te defuñ dara Kaolack du set moo tax may lancer appel boobu appel bii nag ku ko dégg woo naa la. mii waa mairie service yeeg ñëpp daal xale yi mag ñi ndaw ñi ASC surtout les ASC équipe football yeeg équipe basket yeeg équipe nawetaan yeeg ñëpp. woo naa leen xale yi association xale yëpp ah woo naa leen ci liggéey boobu nga xam ne ñu ngi koy tàmbali samedi 4 janvier 2020 fii ci gar routière bi bu ko defee ñu commencé ko nettoyer bu beneen yoo ne ñu ñu attaqué waat beneen endroit bu nga xam ne nii bëri na mbalit bu yàggee je crois que mbalit mi dina jógee ci Kaolack. mu nekkoon Alioune Badara Mbengue gouverneur bu euh, Kaolack fa sorewul dara ak Kaolack di Fatick foofu nag xaaruñu sax nit woo leen ñu noppi nañu ngir ëllëg ñu soobu ci liggéey bi set setal mbedd ya ca Fatick euh, Fatick moom da nee nañu dafa bari ñax ba noppi it mbuus plastique yi daanaka mbedd moo tourné gis leen loolu nag metti leen ba tax na ñu ne ñoom ñëpp daal euh, ëllëgee daañu génn song mbedd yi dindi fa mbalit ma euh, ku ñoom nag ne ñu xaaruñu kenn it ci jumtuwaay yi ku am fourchette andi pel râteau ba ci brouette lu waaye am rek euh, andi daañu ci ànd ak euh, Aminata Goudiaby si suñu yeneen xibaar euh, lii nag xibaar la bu ñu dab léegi benn xalel bu toll ci ñaari attaque lu teg moom la ñu fekk mu ñàkk bakkanam ci quartier bi ñuy wax Baye Dëkk nekk Baye Dëkk nekk ca Mbuur xale ba sax ñu ne daal anam ya mu ya ñu ko fekk mu faatu dafa ñaaw ndaxte dañ ko dugal ci saak dañ ko rendi ba noppi dugal ko ci saak police ubbi na ceeb enquête ay fan a ngi nii nag ñu ne xale ba dafa réeroon kenn gisatu ko woon mu dib xibaar bu ñu nangoo ci Abdourahmane Diallo fukki simili ak juróom-ñett moo bootu ci benn waxtu. ak RFM kumpa jeex na. université yi ci Sénégal am nañu directeur des bourses bu bees Khalifa euh, Khalifa Gaye euh, lay euh, wuyoo moom nag démb lañ ko tàbb ci conseil des ministres gi woon Euh, loolaa tax tey ñu xëy dem ca université Cheikh Anta Diop waxtaani ceek euh, étudiants yi ñoom ñëpp ñu koy ñu koy rafetlu di ko dalal jàmm ne yaakaar nañu ne daal ak euh, moom dana ñu amal dana ñu amal safara ci jafe-jafe yi ñuy faral di am pour jot seeni bourse reportage Amadou Sabar Ba Daouda Diouf ak ay mbokkam étudiant jàkkaarloog tableau bi nga xam dañ fa wékk yéenekaayu tey yi moom nekk doctorant ci lettres moderne di rafetlu bu baax ki ñu tabb ci directeur de bourses rafetlu parce que ci côté paiement bi jàpp naa ne retard yi mu doon am ak problème grève yi étudiants yi doon génn di réclamer et man jàpp naa ne dina ko mën waaye Daouda xamal kii di Khalifa Gaye mu teey loolu ci ki nga xam ne ne mooy njiitam maanaam ministère bi ñu dénk wàllum njàng mu kawe mi dafa am direction bu mu yor moom fu mu wéeru muy enseignement supérieur donc ministre de l' enseignement supérieur bi mooy Cheikh Omar Anne te étudiants yëpp xam nañ ne soom passé euh, fii nii dafay xaw a bay ay traces yu xëju doy waar parce que gis nañ ko ci rapport OFNAC yi ak yeneen rapport e boo xam ne kenn rafetlu te jàpp naa ne bu toppee ay conseil am parce que ci tutelam la ne dina ko dugal si loo xam ne xëy na du neex président wala du neex étudiant yi. beneen liggéey buy xaar directeur bu yees bi bokk na ci ñi nga xam ne ñoo war a am bourse loolee la ko Mamadou seen ñu naan ko alias di ñaan nekk étudiant licence 3 ci département bu anglais. léegi li mu war a def nag moom mooy mu xool nan lay def ba ñi nga xam ne ñoom ñoo war a am bourse ñu am bourse parce que yàgg nañ toog di dégg ci université bi ñu naan am na ñoo xam ne ñu ngi feyeeku bourse te nekk nekkatuñu ay étudiant dëgg lépp luñ ci mun di wax xaalisu sénégalais xalifa gay Gaye nekk jàngalekat ci université Assane Seck bu Ziguinchor moom moo wuutu kii di Lansana Conté waaye ndongo yi nga xam ne ñoo nekk ci université bu Cheikh ante jóg bu Ndakaaru di wéy di laaj ba tey lan moo waral ki nga xam ne ne mooy Lansana Conté démissionné. jaajëf amadu Sabar Ba dem ci lycée boobu bu Ziguinchor jàngalekat ya xëy soobu cib gréew la leen métti nag mu di seen benn naataango la euh, inspecteur d'académie ba jël daal di ko toxal feneen ñu ne loolee du dëgg du yoon waxtaan nañoo ko iyaaba ba sonn waaye taxul mu dellu siwaat ci dogalam ñu ne nag euh, seen gréew bi daanaka teñ bi la yéen bi ñëwagul te bu see mën naa diis ñu teewlu euh, ci Lamine Ba. affecté bi nga xam nak def nañ ko ben jangale kat jëlee ko lycée Djignabo yobbu ko ci beneen collège mo tax mer kat yi nga xam ne ñoo nekk ci lycée Djignabo bu Ziguinchor japp nañ ne lolé nga xam nak inspecteur d'académie def nako du yoon ba tax na ñom tey suba xëy amal assemblée générale ngir yëgal seen i naxar honoré Manga mom mo yoré seen cadeau collègue bu ñu génnee fii si lycée Djignabo yobbu ko ci CM Néma 2 collègue bobu mo ngi def 12 euh, ans ci lycée bi di jangale mathématique loolu lañu mënul nangu parce que li ñun dañoo japp ne dañuy kokotal jéemuñu euh, humilier ba léegi depuis bu mu ñëwee ba léegi mu ngi humilier enseignants yi mu ngi génnee ay chef d'établissement yóbbuwaat leen ci classe yi te loolu ñun duñ ko nangu injustice boobu moo tax ñu xeex tey ñu jóg tey naan dañ koy xeex ba mu jóge fii tant que mu ngi dellu ci décision am ñun enseignants yi intersyndical lycée Djignabo pare nañu pour def lu lu war pour que autorité bi dellu si si ginnaaw. jàngalekat yi ñu ngay wone seen i mer ko ci inspecteur d'académie ci jamono ji nga xam ne nag moom dañ ko affecté mu war a dem feneen kii nga xam ne nag ko tuddi Cheikh Faye jàngalekat yi jàpp ne ab diplomate la ñu koy xaar nag bu mu saafara jafe-jafe boobu nga xam nag moom la fi war a fekk. am nañu yaakaar trop si IA bu bees bi am nañu yaakaar trop parce que jàpp nañu ne ak euh, lu ñu dégg si moom vraiment jàpp nañu ne ku baax la dafa mun déglu nit te yaakaar nañu ne. mun na ñëw décanter situation bi parce que lii décision la te décision boobu mun na ko kase. yenn ci ay responsable G6 nga xam ne jot nañ jokkoo ñoom te ci suba nee nañu ànduñu ak doxalinu enseignant yi lycée Djignabo jàpp nañ ne ki nga xam ne nag bu di inspecteur d'académie bi dogal bi nga xam ne jël na ko fu dëgër la ko teg ndaxte njëkk nañ ko waxtaanee ngir mu amal ay redéploiement ba nga xam ne njàng mi dafay gën a sukkandiku fi ci région bu Ziguinchor Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. ñii moom Lamine Ba di ñu euh, waa waa lank ñoo bañ. ñu ngi wéyal seen xeex bi ngir ñu jëlee fi yokkute euh, njëgu courant bi tey ci suba ñu nga woon ci mbeddu euh, banlieue bu Dakar a Guédiawaye rawatina def ab campagne de sensibilisation maanaam ñaax nit ñi ci seen i xeex daal di fa séddale ay flyers defit ay discours jëme ci askan wi euh, Salif Sow séddina lépp. 9 h lañ ko doon xaar 11 h lañ mujjee tàmbalee dox wër mbedd géejawaay yi lee wutali bërëb yi nga xamante ni ñoom ñooy ëpp nit ci waxtu wi rond point Canada lañ déparé. dem marché Sam dem Mamou Ciss ba marché Ndiarème côté marché Bes ensuite dugg Gounass doog a remonté Pikine. ay marche ak ay sit wala conférence de presse la ñu doon gën a xamee bi yoon ne ñu dañuy sol seen daal dox dem ci askan wi wax ak ñoom directement ñoo lànk mi ngi wax la moo tax muy doxalee nii. yëpp dafay entrer dans le cadre de la diversification du combat ci bokk nag ñu léegi dem ci askan wi def ay visite de proximité pour sensibiliser leen. ñetti waxtu la leen préfet joxoon 9h ba midi ngir ñu dem wax ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy consommateurs yi di ñuy jëfandikoo courant bi la diggante ay kayit di ay flyers yu ñu doon séddale ak ay kàddu yu ñu doon yëkkati muy jàll di sori collectif bi nee na day yee askan wi ci yokkum courant bi nga xamante ni teguwul ci dëgg teguwul ci yoon. waa ji ginnaaw bi ñu ko joxee kayit sa wax ak moom nee na boole na boppam ci xeex bi. wootee instant yi maa ngi fay vingt cinq mille jëm kaw huit mille laa fay loolu mënul nekk c'est impossible waaye mu ngi ñuy rey fu mu toll ñu ngi bëgg a dee. gaay di dox di wër ci mbedd yi di wax alkaati yi topp leen lim bi takk woon lool ñoom policiers yi waa ñoo lonk banlieue nag tey ci suba gi li ñu seetlu mooy seenub lim taxu ko woon bari noona ngoon gi tamit nee ñu noonu la ñu fas yéenee duggee biir pikin lile ñu ngi koy wax nee ñu ngir waajal askan wi ci seen marché national bi ñuy waaj a amal fan ci weeru janvier bii ca Colobane. encore dafa seer Salif Sow Guédiawaye ngir rajo Futur Media RFM bitim réew. Binte Diallo ñu dellu nuyu la. waaw ma fayaat la. xibaari biti réew ñu tàmbali kook faat gi ñu faat général euh, bu euh, Iran bi di Kasem Soleimani. waaw euh, daanaka nag tax na ba communauté internationale bi ñu ci ëpp dañoo mer. mu mel ni tremblement de terre tey moo am ci biir àdduna bi ñu ci bëri nag ñaawlu nañ ko ñii ne faaw ñu fayu ndax nag général iranien boobu ñuy wax Soleimani ba américain yi ñoom ñoo ko faat ci ndigalu président Trump ca ca Irak. Euh, ñu kon bokk Hezbollah euh, bu Liban nee nañu dañuy fayu euh, ki nga xamante ne mooy guide suprême bu Iran moom itam nee nañu dinañ venger deewop général bi premier ministre bu Israël dafa nekkoon sax tukki ca Grèce waaye da ko gàttal daw delluwaat ca Israël Paris ak Berlin di woote jàmm États-Unis moom nee nañu ñi nga ay doomam yi nga xam ne ña nga Irak nañu fa génn nu mu gën a gaawee dañ leeral yeeg Koumba Sandiane fay jëwriñ juñ dëkk gëwoon teg nombal ndombal tànkam bu réewum Irak Adel Abdel Mahdi gis ci aljuma ji eh, ne l'olé Amérique def di Fat Bakanop eh, ci guddub alxames gi eh, général iranien bi di Kassem Soleimani ak lieutenant ba ci Irak Abu Merdi al Mohandis l'olé moy wul dina indi guerre bu reuy ci gi premier ministre bu Israël Benjamin Netanyahu mom mu daldi dakal tukki ba amal tay ci aljuma ji fofé ci Grèce ngir Israël gannaaw bañ ko yëgalee chef des forces iraniennes bobé ñu doon faral di né ne da dafay amal ay congu ci réew Israël euh, France Mom euh, mu ngi woote rek ngir jàmm dellu si Moyen-Orient euh, pouvoir syrien bi moom mu ngi ñaawlu loolee mu duppee ab agression bu ñaaw a ñaaw bu Amérique gis ne mbir la buy ci Moyen-Orient réew Chine bu ñu sukkandikoo ci yor kàddu diplomatiem di Geng Shuang ñaari wàll yi dañu war doxal jàmm rawatina États-Unis ngir daal di moytundiku fitna ci àdduna gi jëwriñ gi ñu dénk wàllub bitim réew bu Royaume-Uni Dominique rap

bii di Kassem euh, Souleymani Kumba Sandiane Faye ñu dem ca Côte d'Ivoire Binta Diallo addu ci mbirum Charles Blé Goudé mi nga xamante ne yëkkati ay kaddu yëkkati nay kaddu gannaaw ba ko benn tribunal foofule ca Côte d'Ivoire daane par contumace maanaam atte bi bi muy am boobu néew fa woon mhm. fukk ñaar fukki fa euh, ñaar lañ ko daan waaw moom Charles Blé Goudé moom moo jiite woon les jeunes patriotes ca Côte d'Ivoire ndaw ña foofa euh, moom nag dañu ko atte ca CPI dañoo jàpp ne defoon président de Laurent Gbagbo euh, CPI pays ko mujj acquitté ne euh, dara euh, Côte d'Ivoire juge de jëlat fait yoy nga ñom lañu la kaw daal leen Côte d'Ivoire leen ku ci ñaar ñaar fukki atu kasso té ji la bu Charles Blé Goudé nek na du dara lu sanction politique Mom mi ngi président Ouattara mu daal di numu waxtaan bu ko na ñu jëlee xibaar bi ci fi ay kàddu euh, Blé Goudé ki ko tekki mooy Amadou Sabar Ba le président Laurent Gbagbo Laurent Gbagbo adversaire politique te wa Côte d'Ivoire bëgg nañ ko batay ak ki nga xamné né moy Blé Goudé momit it kenn bañu ko fi teg ci ñu condamné ko fim toll nii nag mënta comprendre rek moy condamnation yu bari yoy ñuy def te lolu dalul xel ben yoon teg ci président Ouattara dafa wara moytu lu ni mel ndax dama japp né rek war mëna mën ñëpp ngir ñu waxtaan ngir jamm mëna am ngir ñu bañ humilier li nga xamné moy suñu réew di Côte d'Ivoire waaye mbetteel bi am rek dama gis né ne di Alassane Ouattara dafa jël li nga xam ne ne mooy yoon justice bi di ko instrumentaliser ci ni mu ko neexee ma jàpp ne moom Ouattara moomu sax am na doole joo xam ne war nañoo mën a dajale ñun ñëpp ngir ñu waxtaan 2003 amaloon nañ benn table ronde ca France taxul tamit waa Côte d'Ivoire jógee nañ Abidjan ngir ñëw rek amal waxtaan yi ki nga xam ne ne mooy Gbagbo ak Charles Blé Goudé ñi ngi fii ci Europe te du seen coobare loolu yëpp nag Ouattara la ma jàpp ne fi mu toll nii rek li ma koy ñaan mu woo ñëpp ñu dajaloo waxtaan ci li nga xam ne ne mooy processus électoral bi

ni juin ba la ñu génn euh, mi ngi doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ci mbir mi euh, ci micro Mohamed Diop mi nga xam itam moo tekki ay kàddoom. Nous avons sentiment que le nouveau pouvoir. li ñu jàpp mooy ne euh, nguur gu bees gi jubluwut ci mbir yu am solo yi dëgg-dëgg moo xam nu ñuy fexe ba nit ñi ànd nekk benn wala saxal fi démocratie wala yemale ñépp ci alalu réew mi il nous faut

Euh, suba incha allah euh, maa ngi ci clinique day ba. Hmm. boo ma soxlaa fii ngay bàyyi daal micro yi dem. dama lay def reportage Alaaji nee naa ko ne déet hmm. Alaaji nee naa ko bu subaa. Hmm. na fi indi ay brouette takki peel. foofa. ah léegi yow bu boo xëyee rek woo ma ma defal la nga defal ma direct ci clinique day ba fee ak président. <laughs> waaw ca demal demal waaj fi mu ne nii moom ñëppay bëgg a clinique day na dëkk bi set. Tidiane wàllub tàggat yaram ñu euh, tàmbale ko ñàkkum infrastructure sportive yi. di benn problème bu am solo nag fii ci Sénégal. Mhm, waaw loolu nag doon na jafe-jafe bi nga xam te ne boobu ak léegi ñu ngi koy dund donte sax ñu ngay suux ak moom di fexe nañu doxalee li nga xam te ne dal woon di football bi fii ci Sénégal waaye doon na li nga xam te ne ma ngay gàllankoor bu baax a baax lii di équipe yi ba tax na tey jii jot na ngir ñu daal di ko joyanti ci nu mu gën a gaawee loolu nag moo di kàddu doyen Abdoulaye Diop nga xam te ne tey jii suba mu ngi woon ci biir RFM Matin rafle boobu yàgg na fi de équipe bu Dakar génération bu ñu amoon stade gagné coupe d'Afrique moo di 2002 ak bii 2018 bii nga xamee ni dañu jógee coupe du monde génération yooyu yëpp fi ñu jaar ba dem coupe du monde bu ñu infrastructure à domicile gagné coupe d'Afrique te ci diggante bi am na leneen lu fi xew loo xam ni rafle stade tamit moo ñu xaañ dem coupe du monde Sénégal yi fàtte nañu ni am nañ fi benn match boo xam ne ko gagné dañuy dem à la coupe du monde ñu suspendre terrain Dakar amuñu feneen fu ñu jëm Côte d'Ivoire dañ ko mujj recevoir su ngeen ko fàttalikoo Maroc nul fa ak moom Côte d'Ivoire qualifié dem à la coupe du monde te gis nga Sénégal bi ñuy bàkku ci biir Afrique ak monde bi ngay dégg ñu naan Sénégal premier pays d'Afrique Sénégal vingtième pays mondial sur deux cent douze pays yu affilié à la FIFA dafa am lu ci trompeur te gisuñ ko du Sénégal ay sénégalais la parce que bu ñuy wax le football sénégalais moo di lu jógee diggante Ziguin Chor Bandar nga xam ni moo di biir Sénégal ci suñu championnat kon liggéey bi rëy président Macky Sall barki démb bi mu organisé Dakar Arena dafa dalal suñu xel parce que dafa ni ñu pareeguma danaa leen jox léegi stade ay problème technique moo taxoon pose première pierre bi amagul woon ba barki démb mi ngi fàttali ni ci weer wi ñu nekk dinañ ko door mu nekkoon euh, doyen Abdoulaye Diaw Cheikh Tidiane. Euh, mhm. weekend bi moom amul euh, championnat coupe de la ligue la amal. waaw moo di premier tour coupe de la ligue Niki ki ëllëg nag di samedi la ko fas amal waaye match gi ci gën a dimanche lañ koy amal ca Alassane Djigo bu Pikine diggante AS Pikine ak ñii di waa Jaraaf match yi nga xam te ne dañ ko daal di door ba ak Amitié FC ba ca Fatik dans Fatick dana tase ak ñii di Renaissance de Dakar moom dana dem ca Mbour fekk fa ñii di Demba FC Union Sportive bu Wakam

diggante FC Séville nii nga xamante moom moo féetee jamono gi eh, ci bopp raw gàddu gi rawee ñaari pañ ñi Real Madrid ñoom eh, moom eh, dana déplacé ëllëg 15h ci Getafe Atlético Madrid 17h digganteem ak Levante lay daal doon kon boog Barthélemy lii moo fi gënoon a fës ci xibaaru tàggat